liggéey bu rëy la ndax sëriñ Touba ni ko sëriñ Abdou waxee léegi sëriñ bi sant yàlla suñu borom dafa wane ba kon doonatu lu ñu jaay wala mu doon lu ñu wane yàllaa ko wane ba noppi alquran moo ko njëkk a santaane ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi diin wa linzura qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun kon loolu day mel ne warteef la ci ñenn ñi ñu mën caa wutu ña ci des kon nag yéen yàlla def na Serigne Touba jagle leen liggéeyam bu rëy bii te sëriñ bi kat bind na fu bëree bëri wax ne wa man nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatul aynil mujrim wax na ko ba tàyyi ci njaay ñëpp dégg ci li nga xam ne bokk na ci li seytaane bi yàqale taalibe ngir fexe ba dox seen digg xam-xam waaye nag mbirum Sëriñ Tuubaa lépp lu ci waxtu bu agsi rek na ma ko waxe woon aw dafa mel ne sorrabalu def ba noppi mu denc ko nongu gi ko Sëriñ Tuubaa nongu itam moo tax résultat bi demee nii ndax tey ku fa dem da nga xam ne mori yi positif lañ jàmbaar lañ ndax lañ fa def ci du ñaari at loolu ab état sax mënta jëf lu ko weesu kon taalibe yi seenu njàmbaar kenn mënu koo natt moo tax bi sëriñ bi di woote màggal gi ma wax ci làmb ñoom ne la sëriñ Saliou Mbacké waxoon ne joxe bi dafa jiitu laaj kon taalibe yi seen alal jëpp suñ bee moo tax waxtu ne ñu leen di so soññaka fàttali waaye ñu góor góor lañ mën waaye nag nañ xam ne am murit day liggéey waaye du wàcc waa mu dem ba xataa yaatee ka leexin ne ñëpp gën a góor góorgóorlu waat ci loolu gën caa farlu gën caa defaat yitte fexe ba ku ci jëfoon nga jàpp ne mosoo caa jëf dara gëm na ci waxtu ne la nga mujj jëfa ci la sa aju fa kon loolu ñu ngi ci soññ ñëpp kon sëriñ Ahma ñu ngi lay sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax ba mu agsee jataay ba mu njëkkee dafa njabootu sëriñ Touba bi ba wax kàddu mu wax ba mu woote waatee ci kër sëriñ Touba dajale borom xam-xam yëpp dafa wax ne daal ji de bi fi sama kilifa yi nekk la newoon ci xelam. waaye bu ko fi yàlla defee nag muy Serigne Touba mu ne amul benn bëgg-bëgg lu may moom mu ne bi ma ko xalaatee itam xalaatuma ci kenn tuddul yow nga doy ma ci ak ñi ko ànd loolu yaakaar ji nag tasut ndax moom ci seere kon wax ji li ma ci waroon wax ci mbirum téere sëñ bi sama wax xanaa li ma ci fàttali rek mooy ni ko sëñ bi waxee léegi loolu yoonu dañ leen ko yàgg def ndax boo demee ci Paul Marty étude sur l'islam du Sénégal bu ma jubu noonu la wax na ca lu bëree bëri boo jàngatee wax ji sax da ngay xam ne lii ki koy wax noonu ki koy wax la ndax kii nettali histoire daa war wax histoire ba nam demee waaye bu fekkee daa joxe xalaati boppam nam gisee loolu bokkut ak la war nekk dëgg di dëkkali yoon mu fi ñu dëkkut di bind ci ñoom loo xam ne bokkut ak la am ñu di ko bàyyi muy jàll waaye loola nag jàpp naa ne waxtoo jot na loola wëratuta am ndax adduna weesu na ko te taalibe Sëriñ Tuubaa itam fas nañ ci yeneen di fulla joo loolu dootu amate nii ko sëñ bi waxee naa ne nag ñoom seen xikma dana weesu buñ déggee lii ñu xam ne doomu aadama dina njuumte dana ko dal donte yéene ji man naa bay ñaaw waaye bu ci njuumte amee nag muy loo xam ne mën naa yàq ay génération génération ndax mbind da du jeex ba téeméer ay téeméer téeméer at dafay des ndegam njuumte am na ca nag kon nañ ko dindi buñ ko dindiwut tam ñu far ca turu sëriñ bi génn ko ci histoire bi ndax nit boo koy bindal histoire da ngaa war a gëstu ba ngay wax wóor leer comme na ma ko waxoon daal alxuraan sax dafa wax ne nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq li ma lay nettali ci la weesu woon sax dama koy teg ci dëgg kon histoire ku koy nettali faw ak maandu moo ko war a naan ndax taarix li ñuy taarixu laa yarham boo agsee foo xam ne mën naa métti ca ka ka koy waxal sax tubaab yi li ci ëpp noonu lañuy ñuy bind kon nag ñu ngi leen ci soññu leen xamal ne fii di ci yoon wépp nekk fii li daayiratu Rawdu Rayaahiin def nañ xam ne ci ndigalu sëriñ bi ne ko def te ànd nañ ko yoon yëpp ànd ko taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp kon ñu ngi leen ci diglu rek di diglu ba xam nan ngeen koy def lu ngeen ci lu ngeen ci lu ngeen ci jëfandikoo nag te ànd koog ñoom ñu ànd koog yéen bu faw bu fekkee demeewul noonu nag dañ cee maanoo te leer laa ko àdduna sépp nañ ko waxoon daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala